quelque temps ginnaaw bi euh, premier ministre Ousmane Sonko yëkkatee ay kàddu yu xaw a ñagas dal ci kaw Emmanuel Macron donte bi muy dem université euh, ànd ak euh, Mélenchon précisé woon na ne c'est le chef de parti mais teewul am na ñu gis ne xëy na kàddu yooyu tam mën na nekk ci biir jotaayu waxtaan bi tey diggante Emmanuel Macron ak président Bassirou Diomaye Faye. non am na loo xam ne il faut toujours ñu def la distinction. ok Sonko. moo yore parti bu tudd PASTEF PASTEF am na gis-gis par rapport a la personne Macron mm. yow yaa ngi xool lii Ousmane Sonko yëkkati comme cadeau boobu c'est sax mais na nga xool aussi yan geste la Macron am bala Ousmane di falu tey fu mu ne nii Macky Sall mi nga xam ne tuur na fi deret reen na fi ay nit teg na lu kut ci ay dossiers yoo xam ne dafa waroon dem justice fooye na la gouvernance jaay na suñu dëkk militaire yoo xam ne même Ablaye Wade daf leen newoon pour ñu kii ni Macky Sall ñëwaat ci loolu Macron dem ba mu toll fu muy nekk employeur personnel bu Macky Sall daf ko infantiliser infantiliser infantiliser ba defe ne li Macky nangu moom la Sénégalais yëpp doon or on est différent Macky Sall jaay na boppam su yemoon ci moom problème du am mais dafa jaay boppam bugg a jaayalee Sénégal période boobu yëpp gis moo kenn ku posé question pour dire est-ce que comportement bi Macron di am ni ànd na ak ñun suñu aspiration à être respecté dans notre dignité non donc kii tey lu mu wax Ousmane gis ma lu si ñagas dafa loo xam ne moom la ñëpp war a wax mm. tey mi ngi ni yow ki nga xam ne Sénégalais dañ ko vomir ba mu am ay association yu demandé sax ñu extradé ko yow nga ne kooku ngay boot faatu yow tey fu mu ne nii nga am koo xam ne yaa ngi ko denc sa kër te moo la ni moo rey sama pap moo rey samay rakk moo ma saaga moo ma kii nii bët bët laa lay xoolee. du yëfu naafeq du yëfu naafeq naafeq ku ko attaqué est-ce que am nga ci baakaar attaqué naafeq est-ce que est ci am baakaar. posé naa la question dañuy waxtaan rek naafeq dañ ko war a xeex. ah très bien donc ñoom Macron c'est parce que ñoom ci ci compréhension bu ñu amoon ñoom ñu ngi xoolee seen bopp comme étant au-dessus des présidents africains mm. des présidents africains comme ay valets ay subordonnés ba finalement du ñuy def ay nuances léegi mi ngi nii en pleine prise crise sénégalaise moom bu muusoon dafa waroon considérer ni kii nga xam ne moo nekk la principale victime du système de Macky am na niveau de popularité boo xam ne suba mën a doon président donc yu mel noonu da ngay moytu diplomatiquement nga bañ a far fii wala bar far fii mais c'était flagrant jàppale na Macky jàppale Macky jàppale Macky léegi Macky daanu mi ngi ni war a xaritoo aujourd'hui ak Sénégal les états n'ont pas changé mais les gouvernements ont changé mais changement gouvernement boobu moom il faut que mu sentir ko comme ça dinañu xoolee ak beneen bët boo xam ne wute na ak bët bu mu doon xoolee ay ñoom Macky Sall ñoom Macky Sall nangu ñoom nekk ay booyu Macron noo mënee nekk sax président. nga yore dëkk historique aussi riche comme Sénégal en pleine campagne ñu lay naan léegi yow da ngay ñëw ñu jox la nga gérer ñu li nangu loolu ngay suufeel sa bopp di suufeyaale Sénégal Ousmane Sonko ñun war nañ ko tàccu parce que moom mooy indi tey beneen rapport boo xam ne Occident ak seen richesse yëpp dinañu gis ni am na loo xam ne c'est pas négociable mooy ñun suñu dignité suñu respectabilité kenn lu ñu fooye mais ni Ousmane Sonko di xoolee Macron naturellement Bassirou Diomaye Faye noonu la koy xoolee parce que pratiquement yéen Pastef yëpp da ngeen jàpp ne France pour ne pas dire Emmanuel Macron daf leen doon sot entre 2021 ak 2023. lu leer la. kon tey ndaje mi est-ce que loolu. du ci non non non yow comprendre non xuloo naa ak yow terewul ma waxtaan ak yow. wala bu ñu waree mun naa la jëppi sax ba pare may waxtaan ak yow. sama wax mooy am solo ñun suñu wax dafa constant. Mm. c'est parce que lan la. nekkul faveur la pour wax avec un président français mais dafa nekk loo xam ne ay circonstances noo ko exiger la diplomatie a ses règles c'est tout mais ma ne la Macron ci boppam mooy changer. mooy changement bi ci Macron lay jógee c'est-à-dire bët bu mu doon xoolee les autres président africains des autres pays te du ma leen tudd beneen lunette lay sol buy jaakaarloo avec un président boo xam ne Sénégal la jógee kooku na leer beneen lunette lay sol lunette yi mu doon sol di xoolee ay ñoom parce taxawaay ngeen fa yóbbu mais amul moom moo am moo nekk ci am na noo may xoolee sax doo am fit pour wax ma yéen yow am na noo may xoolee doo am fit pour mais aussi am na noo may xoolee di ma ñeme ba voilà. loo xam ne nee nañu bukki bu yabee gaynde très bien mu wokk voilà surtout donc loolu la. Macron moo gën a xam ni ñi fi nag léegi ute nañu ak ñi ñi remplacé ñi ñi remplacé bañu loon dara amuñu woon principe renoncé nañu à à leur dignité. jaay nañu seen bopp jaay seen am lu leen dese mooy jaay Sénégal yi. li mu nangu poste envoyé spécial moo tax loolu sax dans tous les comportements. comme la leen téye comme ay boy rek daf leen di woo rek à gauche à gauche à droite à droite tëb leen ñu tëb def leen li ngeen def li soo paree après nga ñëw mën ma utiliser. kon Macky loolu moo nekkoon relation ak yow xalaat nga gis un président africain naan Macron yaa ngi fin de mandat boo paree nga ñëw sama dëkk ma jox la liggéey nga kii ma xalaat nga ko nañu essayé Macron mi ngi fin de mandat de façon wax ma ban dëkk moo am président bu am sañ-sañ dinaan Macron bon gis naa ni yaa ngi fin de mandat bëgg naa léegi soo paree nga ñëw ma jox la benn poste fii nga léegi sama dëkk. wax ko Macron de. waaw ah, na dafa jàpp ne am na. lu nit ki da ngay am fulla boo demee ba tollu comme président waroo foyee sa bopp mais boo gëmulee sa bopp mooy indi doo xam sa valeur Macky Sall c'est ça le problème complexe la woon. vis de Macron génération génération bu bees bi c'est une génération boo xam ne dafa décomplexé dañu gëm seen bopp gëm seen population gëm seen peuple Ousmane Sonko ou Diomaye Faye ñoom gëm nañu ni ils ont tiré leur légitimité de la seule volonté du peuple souverain du Sénégal yoonu kenn newu ci ci bitim. mais ñoom ak Sall ñoom dañu gëm nii bu ñu doonee président faala ñu seen peuple mais Macky kii Macron la ñuy gërëm jël suñu ressources yëpp ay terre yooyu ay berte yooyu yëpp yi nga gis la woon c' était face à une France agonisante par rapport. des entreprises en faillite par rapport à économique ñoom ñoo am fi une fenêtre avec complaisance des marchés de complaisance ay milliards et milliards et milliards loolu moo indi ba suñu dette bi toll à 70 pour cent du PIB. loolu yëpp luy neex France rek. donc problème bi c'est c'est c'est démentiel donc pour te dire encore une fois que bokkul donc Macron moom ci boppam xelam dalul parce que dafay xam ni ñeneen la amal affaire te ay moromam jeune xam nga Macron moo gën a jeune sax ay ñoom Macky Sall mais ñoom Sonko ñoo ko gën a jeune aussi que Macron donc ay moromam jeune lay dajal nga xam ne wutee nañu ak les présidents classiques nga xam ne ñooñu c'était des complexés c'était des valets xale yi ne lan c'était des préfets même de la France même pas gouverneur am na tam ñu gis ci yéenaaw ba tey nekk poste boobu ñu ko jox sax ngay critiquer nii c'est une façon peut-être de lui offrir benn genre immunité face au risque de poursuite yi nga xam ne am na ci réew mi contre moom avocat wu seen euh, président parti bi d'ailleurs yëkkatiwaat na idée boobu ne nañu topp Macky Sall au niveau de la CPI wala ñu créer fii des chambres spéciales comme niñ ko defee woon ak après pour atte ko da ngeen gis ne itam ba tey Macron mi ngi wéy di ko jàppale moom Macky Sall ci ci wàll boobu xam nga dëkk bi ma ne la Macron il est mission Macron ces jours Sonko de il est en donc yow xanaa boo muusee sax doo dem ci président boo xam ne jeexal na état muy fonctionner moo compliqué. Macron tey tey tey tey su naroon am beneen mandat su nekkoon ne mu nekkee fin de mandat mu naroon am beneen mandat pour mu jaay Macky Sall pour sauver moom diggante ak ñoom Sonko du dara ci moom kooku noonu la gars yi mel donc Macky moo war a ubbeeku moo war a muus te mu nekk jeune.